waaw bu fekkee fiddaaw de mooy ñaanal nit ki ngir mu mucc ci sawara bañ a tàbbi sawara bu fekkee loolu mooy fiddaaw loolu nit kuy dund mën nañ ko koo defal ñu ko mën a defalee ku koo xam day tax a mucc fii ak kuy dund ak ku faatu ñëpp ñoo ko ajoo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku jaaxasoo soxnaam ci guddi gi te sanguwut ndax dana mën a jàng ay léemaay lu mel ni ayatul kursi ak falaxi naas waaw ku laabu dee tere wuñ ko mu jàng ay aay ngir muslu wala tegtalu waaye li gënoon nag ci ku mel noonu mu dem sangu ji bañ a fanaanoo sobe su amee ngànt nag ci loolu balaa tëdd na jàpp ko njàpp moo xam ne xëy na day woyofal sobe si la ci jublu mooy njàpp yi nga xam dañuy wax ne dem woon nag ak dox ndox du tax mu toj mooy ki nga xam dafa joteeg soxnaam sangu war ko te mënta sangu ci guddi mu jàpp fanaanoo ko ngir bu bu fajaree mu door a sangu waaye li gën daal moom nit ki bu noppee mu sangu ji dina fanaanoo sobe wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na li ñuy wax rab ndax am na bu fekkee ne am na ku ci bëgg mu ci nu muy def waaw rab day ay jinne lay doon yoo xam ne dañuy jaxasoo nit ñi am na ci yu baax am na ci yu bon yu bon yi nag ñaare ñooy lor nit ñi di leen xupp ak a diital ak di sabab ay jàngoor yu leen dal yooyu nag ku ci bëgg a mucc ngay takkoo tur yàlla takkoo laab ndax euh, saytaane dafa ragal tur yàlla dafa ragal ak laab sobe ak euh, fàtte yàlla moo koy mooy mooy tax mu ñeme nit ki kon ku sax ci yooyu rek yàlla mën na ko ci musal wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax nit sañ naa dox ak mbokk jëmale ci mbokkam moo xam ne ci wetu baay la wala ci wetu ndey waaye nag moom judduwul ci yoon waaw ku judduwul ci yoon mënut a am ay mbokk ci wàllu baay ci sharia waaw kooku di wax ne ci sharia amul baay am na nag ay mbokk ci wetu ndey ñooñu bokkal ci wetu ndey ay nijaayam ay ñu bokkal ndey wala seeni ndey bokk ñooñu ñooy ay bokkam ni lislaam santaane ñu jokk ñun ñëpp ko ndax moom li ko indi ci àdduna du moom moo ko sabab kon bàkkaar la boo xam ne ñoo ko jur ñoo ko def waaye moom yoon nekku ci duñ ko yàlla jàngal ko mën naa baax mel kon jokk ko daa bokk ci santaane ndax ak mbokk la mbokk yëpp lañ jokk la waaye moom na eh, mbokk meen la am mbokk ginnaaw wallahu taala alam mi laaj nee na ak can nu muy toll ak ban bis moo gën rafet ci fas ab sëy waaw can de amul fu mu yem sadaax maanaam li gën a néew moo am am na ne can waru koo yées ci mazhabu imam Malik maa ne ku ñuy maye moom gën jaa néew na mat loola loolu mooy rubu dinaar loolu nag dinaar fi ne nii eh, di bon dinaar mooy benn gramme or la ak fumunu gramme maanaam gramme or buñ xaj juróom-ñetti xaj maanaam fi ni boo ko doon xool du du sori lool ay cinquante mille quarante nangam mille du ko sori mooy li nga xam ne ab sëy mënta fasu ci lu nu muy toll nag moom day topp aada luñ def fa daaxul baaxoo joxe loolu mooy lañ waaye li nga xam ne nag ci masab may dañuy wax ne waree su fas ab saytu ci lu ko yees moom mooy rubu dinaar loolu nag xëy na la ñuy faral di tudd waaye jëmmi can moom am fu mu yem ban bis moo gën a rafet fas ab say ci ci moom bis yëpp baax xam ne nag nit ñi taamu ay bis ngir xëy na lu ca xewoon nag bis yi waaye gis yëpp bis yëpp baax ngir fas ab say ci charia wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na suñuy may nit soxna lu ñuy wax waaw may soxna di ñaari baat mooy yi nga xam ne mënu caa nekk kii maye na ko fasal naa la ko kiñ koy may ne nangu naa ñu waxal ko seen bopp wala nit teew ñu am ku leen wutu kon ki ki yooyu juru jigéen ji mën naa mayal boppam mën naa wut keneen ko ko wutu ko ci kii may soxna mën naa ñëw nangul boppam mën naa yebbal keneen ñu nangul ko waaye daal fasal nañ ko mu ne nangu naa ñaar yooyu mooy li ci mënta ñàkk sopp na nag xutba bu cee jiitu xëy na fatiha ji ñu yenn ñaani ngir barkeeloo ko la waaye nekkul sart ci ne suñ ko defut sëy bu baax waaye daal faw ñu ne eh, diw sangam góor gi nga xam ne mooy kilifa jigéen ñi ne diw sàngam may naa ko soxna fasal naa ko soxna kooko it ne nangu naa wala ka ko fa teewal ne nangu naa ñaari baat yi su xasee am sëy bu fasu na alam mbokk mi laaj nee daa dégg ñu ne dañuy wax ne doomi njaalo bu ëllëgee laaraaf lay dëkk daa bëgg wax doomi njaalo joo xam ne ku jub la léegi muy laaj nag kon ay way juróom ñoom fu ñu dëkk ñoom laaraaf ab miir la ci gën a wér ci waxi borom xam yi mu nekk diggante sawara ak àjjana jamono yi nga xam ne ci la ñuy ñi la am ñu fay nekk bokk na ci ñu nga xam ne dañ fay nekk ñu seeni jëf yu baax ak yu bon tolloo waaye ña fay nekk ñëpp nag bu atte bi jeexee àjjana lañu jëm kon doonu barab bu ñuy dëkk yow ma xëy moom bu àtte ba jeexee ñaari kër fa am àjjana ak sawara ku nekkul ma nga sawara léegi nag doomi njaaloo njaaloo gi bàkkaar la waaye du moom moo ko def su góorgóorloo ci lu baax topp yàlla boobaa danañ ko fay ay jëfam ci yërmande yàlla tabi aljanna xëy na nag am na xadis yi wax ne moo yées ci ñoom ñett ndax su defee seenu jëfa tax ñuy wax koo xam ne ko juddu ci njaal ba noppi nag màgg di doxee noonu kooku moo yës ñëpp ndax cosaan la la ko fi indi lu bon la ba noppi mu ne ci lu bon waaye buñ ko yaree nag jàngal ko mu am gëm yàlla gu wér jub di baax di baax kooku bu yomal xel mais jëfam yooyu lañ koy xoole ci la ci yàlla jóge yërëm ko wallahu taala alam mbokk muy laaj nee na daa am nit ku faatu nee biñ ko dëjalee ba noppi nag moom bàyyi wu fi woon xaalis waaye bagage la fi bàyyi ginaaw dañoo leb luñ ko doon dajale dañuy jaay bagage am ya fay ci boori dëj ba muy laaj ba xam noonu la war a demee wala déet wóor si demee noonu ndax ab dëj farata du sunna du luñ sopp ci aada yu nit ñi def rek la te li doon cosaan ci dëj moom dëkkandoo yi ñi faatu lay ñooy togg ay ñoom andil leen waaye du ne ñoom ñooy togg ay ñoom di jox nii ñi bu fekkee nag ñoom am nañ alal yoo xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom njaboot ga jël togg ci ay ñam xëy na jublu ci sarax ngir nit ñi ñëw teew buñ ko lekkee ñaanal néew bi bu baxee mën nañu jàpp loolu donte dajaloo ko sax ci niñ ko defee nii moom li santaane wu ko saa bu nit faatoo mën ngaa ñëw taxaw jaale ko dem waaye di ko toog dajaloo ñu yendoo ko eh, toog ay bis moom du lu kon lañ fay def du lislaam moo digle ñu defe ko noonu te nit bu xasee faatu it alalam génn na ay loxoom buñ ca xasee fay ay borom àq yi ko toppoon wala lañ koy sàngee lañ koy suulee ya ci aju la def ndono ya ko mom dañ ko wara sédélé ku né jox ko la ci walam ni yalla amak ñom ñepp ñëpp nag buñ ay mukallaf doon am mak mak doon ay mak ànd ak seen sago bu lu neexee jël seen ala doju toggu ci ay ñam sarax nit ñi bo wañu ñoko def ci seen ala waye bu ci benn gone balé goo gut koku ala kenn du ko saraxe kenn du ko mayal kenn amul do jël ala ji di ko naan dañ ci saraxal di wol dañ ci def nangam euh lu mat di bayyi xel la Euh, kon yu mel noonu ñoom ñi nga xam ne ñoo bëgg a dajale seen mbokk bi faatu ñoo war a seen alal dajale waaye duñ jël alal ki faatu ndax moo ko moom waaye moomatu ko tey seeni waroom jotaguñ ca te tolloolewuñ ca it nag moo tax warisu ko warisu ko caaxaane loolu warisu koo laal euh, soxna yi bàyyi sax bu xasee faatu dépasse wàcc na ko ci ñoom ñoom soxna yi kon benn seen doom war leen a dundal wala seen bopp fekkee am nañ alal wala seen wayjur waaye ñoom ci faatu waratu leen dund la alal ji fi nekkoon mu di ci dund njaboot gi boo xasee faat dañ ko war a teg ba séddale ko kenn ku ne jot ci wàllam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na bu tabaski jubee am na ñoo xam ne dañuy yor ay xar di ko wane kenn ku ne di wane ne mu gën rëy la nee na am ñoo xam ne dañuy teg xaalis di wax ne ku gën a rëy rëy lam xar ma jox ko nangam ku ci dëgg nangam waaye nee na ñooñu nag bokkut ak ñi nga xam ne ñoo moom xar yi waaw bu fekkee nit de daa bëgg xëy na nit ñi daf yitte ci toppatoo xar yi ba mu rafet euh, ginnaaw dañ ko tabaskee te lu ci mu gën a rafete gën a mate moo fa gën moo gën ndax bu ñu jaamu yàlla lu mu gën a mate moo ci gën bu fekkee ci bunt bu mel noonu la nga ne xemmeem loolu nit ñi toppatoo seenu jur ba mu gën a rafet suba mën nañ ko jàpp lu baax kon muy neexal nit ñi ngir bëgg ñëpp mën a ci toppatoo seeni xar fii mu ko waxee na xam ne keneen nit mooy coobare di ko def waaye bu fekkee ñoom kenn ku ne day joxe ko ëpp la jël ko loolu carte la carte daganut euh, ci bu dee lu mel noonu mën nañ ko jàppee lu baax xëy na xëy na bu fekkee yéene ji lu baax la nga xam ne bëgg nit ñi xëri ci toppatoo seeni xar ngir buñ koy jaamu yàlla jaamu yàlla li gën a mat li gën a rafet wallahu taala alam mbokk mi nee na xar moo xam ne weer moo ko tee mat at waaye nag jëmu ji man na sëkk moom ndax xar moomu dana mat tabaski wax ji lëng ci mazhabu mooy am xar balaa mat tabaski faw matal at bu at mi xasee mat rek baax na doonte benn bis la tegal waaye na mat at loolu mooy lëng teewul nag am na ci ngir mi ñu wax ne bu ma tee fukki weer baax na am na ñu wax juróom-ñetti weer am na sax ñu wax juróom-benn weer xëy na kon bu fekkee ne maanaam benn weer a ko manqué jëmm ji mat na siri mat rek te moom amut meneen meneen mu mat at xëy na mën jàpp loolu ndax na ci waroom xaw fa ñu wax ne baax waaye li gën nag moom nga xam ne wuute amu ci mooy na mat at wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñoo xam ne bu weeru tabaski jàllee dañuy tàmbali di lekk bu tabaski dikkee ñu jënd ci ay xar ñoom nag ñu ñoo bokk kër nee ñu jënd ci ay xar tabaskee ko muy laaj luy àtteeb loolu waaw bu fekkee dañuy dajale rek kenn ku ne jox la la nga jotoon a teg nga jënd ci am xar su baax na ndax dañoo denc xaalis kenn ku ne ba waxtu jotee ñu jox ko xaalisam mu jënd am xaram amma bu fekkee liñ boole kenn ku ne joxe ci lañ boole jënd ci ay xar nga xam ne xar mu ci nekk ñun ñëpp ko bokk su boobaa kenn amul ci ñoom tabaski ci mazhabu imam Malik am tabaski bokk njëg gi waaye nit cotisé ku ne joxe dara wala ñu may leen am xar ñoom ñaar ñu bokk ko rende buñ ko rendee kenn ci ñoom amul tabaski yool bi nag ma ne soo ko bokk nit ki mën naa tabaski ci këram ren di am xaram yéene ci ku mu ci bëgg yéene waaye na fekk ñetti sart yu daje ca na doon mbokkam na dëkk ak moom te koy dundal bu dee soxna ba tey mbokk la ci atte mbokk la kon bu dee ñi nga jaboote sa kër doon say mbokk wala nga jur leen doon say doom waaye yaa leen di dundal yéen a bokk dëkk boo leen yéenee ci sam xar tabaski ñoom yoolu tabaski doonte tabaski su sunna la woon ñoom ndax mën nañ ko boo leen ci yéene walee moo ci leen bu fekkee nag ne sart yi dajewut moom mën ngaa jënd am xarit yéene ci ñeneen ñoo xam yow doo ci yéene sa bopp moo tax nit mën na jënd am xaram ni xaram yi kat samay xarit tudd ñeneen waaye moom bokku ci boobaa moom tënkuñ ko fenn ñu la neex mën nga leen ci yéene waaye xar mi nga xam ne yow ci nga bokk sa njaboot ñu nga dëkkal te di leen dundal ñoom da nga ci mën a kon tuyaaba ji mën nañ ko bokk waaye njëggi des ko bokk wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na moom day tëbës ki ñaari xar lay rey mel na mi góor la mais mi ci des mu jigéen la nee na mu jigéen mu góor mi nag la yéene tabaski waaye mu jigéen moom yàpp la ci bëgg dolli rek muy laaj loolu waaw bu fekkee ne tabaski xar mu jigéen mën na ko nit ki mën naa rend ñaari xarit jublu ci jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam bu daan tabaski daana rey ñaari xar rend ñaari xar menn moom ak njabootam ñi ci des mu ne ñi tabaski wul ci sama xeet bu daa xëy na daa bëgg yéene wala ñeneen rawatina bu dee bu waa sañ na ko waaye daal lii sunna moom mooy mu rend men xar bu rend lu ko lu te mën na ko jublu ci jaamu yàlla baax na waaye boobaa nag yëpp na ca yéene tabaski ndax xar mu jigéen bu matalee sart yi bu fekkee sart yi tabaski daje na ca suba mu doon jigéen teewut mu mat tabaski wallahu taala alam mbokk mi laaj kan mooy al imaamul buxaari yi ak al imaamu muslim ñaar ñooñu day ñaari kàngam lañ jël nga kàngami ji ci wàllu xam-xam rawatina ilmul xadiis liggéeyal nañ ci lislaam liggéey bu rëy rëy ba ñaari téere yi ñu taalif wax nañu ne mooy téere yi gën a wér ginnaaw bu alxuraan jàlle saxiixul buxaari mooy téere bi gën a wér ci téere yi diine yi ginnaaw alxuraan saxiixu imaam muslim topp ci ñoom nag xam-xam ñu ngi ko jàng ci ñu bare bare bari wax nañ ne imaam buxaari jàng na ci lu mat junniy nit ci ay borom xam-xam dégg na ñoom xam-xam dajale ci xadis lim bu bare bari segg ko nag ba génne ci saxiixam boobu jàng na ci ñu bare bari bokk na ci ñoo ñooñu Ahmad ibn Hanbal imam muslim noonu moom jàng na ci Buxaari yi moom jàng na ci Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp waaye service bari lañ jàngee dëkk yu bari ci dëkk lislaam yi dem nañ seen ngi sàkku ci xam-xam da liggéey ci liggéey bu rëy boo xam ne tey jii kuy dund diine ah, amee nga leen jukkal ci fexe ba dajale wax yonent bi sallallahu alayhi wa ko ba génne ca loo xam ne juboo nañ ci ne wér na wallahu taala alam na da doon julli ba agsi ci taaya nee na mu jàng fatiha ba sori ca ba agsi ci maliki yawmi moom kat taaya la waroon a jàng waaye warut mu jàng la bàyyee nag fatiha jàng taaya noppi def sujud ba'da salaam muy laaj li mu def waaw loolu di jarutul sujud ndax uh, li mu juum wax la joo xam ne du jaambur ci ci ci julli gi jàng fatiha ci du ab jaambur ci julli wax joo xam ne bokkul ci julli gi nga def te tay ko dana yàqu julli bu fekkee dañ caa juum mooy waral sujjóot waaye wax ji ñu ngi mel ne baamu woon aw saar yu mel noonu du tax julli julli ga yàqu du waral sujjóot kon juum fi ñu waroon a taaya mu jàng fa fatiha su ko fàttalikoo a jàng taaya ji rek la ca des dara waru ca wallahu taala alam